الحمد لله من عمل بطاعته هداه ومن توكل عليه كفاه ومن أيقن به سدده وجعل الجنة مأواه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد mbokki julli di noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu nangul nu lépp loo xam ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla jéggal nu lépp loo xam ne def nañ ko ci ay rëcc-rëcc ñoo ngi génne jaamu yàlla gu màgg goo xam ne lim laaj ci ay bind euh, xajut ci ñaari xutba xajut ci ñett yu jaamu yàlla tabaski gi weesu ak aj gi ak weer wu tedd wi nga xam ne ci lañ nekk gannaaw loolu borom bi tabaraka wa taala dafa digle ay ndigal ci alquran wax ne képp ku wakiirlu ci yàlla kooku dana fekk yàlla mu doon ku mat sëkk ku doy sëkk képp koo xam ne jullit la nee na danga war a wakiirlu ci yàlla borom bi tabaraka wa nee na wakiirlul ci yàlla mi nga xam ne moo la gindi won na yoon wi baax ngir nga mën cee jaar na nga muñ itam lépp loo xam ne xeeti lor la delloo ko ci sa boroom képp kuy wakkiirlu it nee na na nga wakkiirlu ci yàlla wakkiirlu ci yàlla ak wóolu yàlla ak dëgërloo yàlla ñetti baat la wakkiirlu ci yàlla ak wóolu yàlla ak dëgërloo yàlla dafay ñetti baat yoo xam ne yu màgg la doon ay melokaan yoo xam ne ak baaxaayam jéggi na dayo su fekkee ni jullit bi amal na ko ci ak dundam su ko amalee ci dundam day dem ba mel ne moom buur la ci kaw suuf nguur goo xam ne lam koy jariñ mooy mu doyloo yàlla ba sukkandiku ci moom mi nga xam ne mooy ki bind walis muy sukkandiku ci koo xam ne mooy kañ bind ki dem ba àgg ci wàllu wakiirlu dana dem ba bakkanam dana àgg ci xeeti ngëm loo xam ne dana gis li koy leeralal yoon wi muy dox bépp jafe-jafe boo xam ne am na ko dana gis lu koy seral fi saasi woowu doxin lay dox ci àddunaam jaar ci yoon woo xam ne du fàtte benn yoon alaxiraam mooy doon koo xam ne doonte nit ñi yëguñu ko it moom yëg na ne ku ne ci gàddaay la adduna ak li ci biiram dox jëm ci ndigali boroomam tabaraka wa taala waaye nag melokaan yooyu ginnaaw lu bari ci nit ñi dañ koo sori tey suñuy sukkandiku sukkandiku ci lu dul yàlla walla li ëpp ci nit ñi walla lu bari ci ñoom loolu moo tax lu bari ci nit ñi yëguñu ne ñu ngi yor xéewal goo xam ne moo dàq xéewalu nguur waaye ñi yëg ne ñoom ay jaam lañ yoo xam ne lu jóg lu ne rek jaamuloo leen loolu moo waral nit ki di aju ci mbindeef ba fàtte ki nga xam ne moo ko bind bind mbindeef ma wakkiirlu nag buñ ko waxee mooy xol bi ci boppam lépp loo nekk nga sukkandiku ci sa boroom firiwul nag ne danga ne rek bàyyi naa sama bopp ak yàlla ba tax doo def dara ok nit ki ñaari mbir a ko séq xol bi day liggéey cër yi di liggéey dañu laa wax ne liggéeyu xol bi jël ko jox ko sa borom tabaraka wa taala waaye liggéeyu cër yi jógal yow yëngatu bu liggéeyu jotee defal effort jéem a liggéey jéem a am waaye nag gëmal ne wërsëg ci sa xol yàlla moo koy joxe bu dem jotee nga bëgg a tukki jóg jëm béréb sàngam bul toog ferank laayu sa néeg ne yàlla dana ma fa yóbbu ndax mën na ko moo kay mën na ko waaye doxalewut noonu tukki kon jëlal sa yi kuy tukki di def yépp def li nga war a def lépp boo duggee ca gaal ga wala ca avion ba wala ca oto ba nga gëm ne àggale ga ci sa loxo sa borom la nekk tabaraka wa kon xol bi mooy wakkiirlu ci sa borom waaye cër yi ñoom dañuy jóg di def seen wàll loolu lañ la digal kon digaluñ nit ki ne na jàpp ne ab muusaayam aku xaralaam ak i pexeem moo koy sottalal ay mbiram kese waaye dañoo bëgg mu ne ci digg bi bum jàpp itam ne day toog rek ne yàlla dana def lépp da lépp dana baax déedéet ñaari mbir yi benn baaxu ci ëppal ci wakkiir lu baaxul ndax ëppal ci moom lañuy ñuy tudde ko bañ a def sabab yi ëppal ci wakkiir lu baaxul waaye sàggane ko it baaxul mooy defe ne sa man-man mooy sottal mbir yi bu koy defal sa man-man ba àggal jël wàllu yàlla jox ko ko mooy àggale ga ak baaxal ga ak barkeelal ga yooyu ñooy ànd mbir ma door a tegu ci aw yoon dafa am benn waay bu ñëw ci imaam ahmad ibnu hanbal ne ko man de maa ngi bëgg a aji waaye damay aj ajug wàkkiirlu mu ne ko ajug wàkkiirlu mooy lan mu ne ko sama loxo kese rek laay jël aw yoonu màkka di dox du ma yor sax ab yóbbal imaam ahmad xam ni loolu njuumte la mu ne ko soo koy def bul ànd ak kenn berul bul fekk mbooloo mu àndandoo di aji nga dugg ci seen biir def noonu mu ne ko ah mu kay nag faaw kay ay àndandoo lay àndal mu ne ko kon wàkkirluwa ci yàlla waaye ca la nekk ci seeni poos ci loolu nga wàkkirlu ndax danga xam ne boo àndeek ñoom boo lottee duñ la seetaan kon da ngaa bëgg ànd ak ñoom bàyyiliku di lekk ca li ñuy lekk di naan ca li ñuy naan waaye loolu du wàkkiirlu kon wàkkiirlu dëgg-dëgg mooy jël sabab yi jafandu ci di dox di def li la war jël xol bi jox ko suñu borom tabaraka wa taala gëm ne moom rek mooy àggale nit ki nag mënta bañ a sukkandiku ci dara faw mu sukkandiku lu tax mooy borom bi tabaraka wa taala da ko bind mu doon ko doyadi ku ñàkk solo ku seet sa bopp ku nekk da nga xam ne doomu aadama ji ku ñàkk solo la ku doyadi la lu tuuti rek mën na ko daal di jaaxal mu jeexal tàkk li fay sës mooy sukkandiku ci ñeneen moo tax borom bi tabaraka wa taala jàngal ko melokaani ki ñuy sukkandiku ci moom nu muy mel mu ne wa tawakkal ala alxayi alladi la yamut wakkiirlul booy wakkiirlu di sukkandiku nee na wakkiirlul ci ki nga xam ne mooy dund sa du dee kii dund te du dee te kàttanam dara mënu ko lottal kon la ñuy wàkkiilu des koy tànn day jaadu mu doon luy dund kon te du dee kooku defe naa ne kenn rek la wala am naa yaqiin ci ne kenn rek la mooy sunu borom tabaraka wa taala teyit dafa war a am kàttanu du daanu ndax boo wàkkiiloo sukkandiku ci luy daanu bu daanoo yóbbaale la bu daanoo da ngay daanu ànd ak moom kon wakkiirlul ci du dëgër loo xam ne du daanu ba noppi du fa jóg yooyu melokaan suñu borom tabaraka wa taala képp moo ko yor kon jamono yoo demee ba yëg ne yàlla jox na la muus wala xel wala xam boo xam ne dem nga ba di ci bëgg sukkandiku defe ne yow say kenn waratu mën a def nii fàttalikul waxi suñu borom tabaraka ci kii dund sa nga fàttaliku ne ah, sama xel mi day dund waaye day yoo demee ba jàpp ne sa alal àgg na nag ci tollu noo xam ne fi mu nekk ñàkk moom waratu la mën a ñëw war naa cee mën a sukkandiku fàttalikul waxi suñu borom tabaraka wa taala sukkandikul ci kay dund te du dee su boobaa nga xam ne sa àll am na li ko indi woon moo koy jeexal mën naa jeex su loolu ne am nga daal di xam ne ko loolu du sukkandiku waaye mooy la jamono yoo demee ba nit màgg fa sa kanam wala mu rëy wala ak baaxam jéggi dayo ak njubam ak jaaram ci siraatul mustaqim ba nga jàpp ne kii war nañoo mën a sukkandiku ci moom mutlaqan jàpp ne say mbir war nga koo mën a jox jox ko ko wéeru ci moom lu baax lu ne baax na baax na lu mu ne baaxul baaxul jàpp ne sax war naa mën a defar say mbir fàttalikul waxi sunu borom tabaraka wa taala wakkiirlul sukkandikul ci kii dund te du dee nga fàttaliku ne bi yàlla bu baax boobu ku baax la koo xam ne roy ko mën naa jariñ ginnaaw ci siraatul mustaqim la jaar waaye doonut koo xam ne day dund te du dee ginnaaw yorul melokaan woowu rek doonul ku ñuy wakkirlu ci moom doonul koo xam ne sukkandiku ci moom des koy mën a def jël sa mbir yépp jox ko kon buntu bu wakkirlu buntu bu am solo ci wàllu ngëm yàlla la boo xam ne dafa am leneen lu ko jur wakiirlu dafa am leneen lu ko jur mooy beneen baat bi ma tuddoon bi may tàmbali mooy wóolu yàlla ki wóolu yàlla mooy wakiirlu ci moom waaye su sa kóolute desee muy li ñu tudde al yaqin su amee ak des rek faaw wàkkiirlu gi des mooy jàpp nga ne soo wàkkiirlu soo ko sooy wàkkiirloo ci moom dara ci say bëgg-bëgg mën naa manqué wala dara ci li gënoon ci yow mën naa manqué soo sikki sàkkaa ci loolu rek sa kóolute des na su sa kóolute desee sa wàkkiirlu faw mu des kon faaw wóolu yàlla gi am <coughs> yonent yàlla yi ñoo gën a màgg nit ñi nuñ wakkiirlu ci yàlla seen kóolute dafa àgg ci ngëm ga ak niñ gëmee yàlla ak niñ ko wóoloo weesu na sax niñ gëmee ñoom seenu am niñ gëmee ne am nañ ñoom niñ gëmee ne yàlla am na te dana sàmm ay jaamam noonu moo ko gën a dëgër ngëm gën a bu demee ba àgg foofu faw wakkiirlu ko moom day rafet faw wakkiirlu ga day rafet moo tax boo toppee yonent yépp kenn ku ci ne bi mu dikkee digal na ña ko toppoon ne leen wakkiirlu leen ci yàlla ñenn ñi di wax ci kanam seen mbooloo ne leen man day ci yàlla laa wakkiirlu nit ñu nit ñu baax ñu fi mas a jaar ñëpp naka jekk ku ñëw te jaar ci siraatul mustaqim da ngay yëgal sa mbooloog ñu topp ci yoon ne leen man ci yàlla laa wakkiirlu loolu li muy firi mooy wakkiirlu leen ci yàlla ndax moom mooy wakkiirlu bi nga xam ne ku ca wakkiirlu juumoo li tax ma ne yonent yàlla yi ci wàllu wakkiirlu jot leen xawuta mën a am waaye manees naa jëli ci ñoom ay bind ci ne ngëm gi ngir mu wér faw wóolu gi day am wàkkiirlu gi door a ñëw buñ xooloon ibrahima alayhi salaam jaamub yàlla boobu di yonent boo xam ne yonent bu màgg la ndax màggaayam ci la borom bi tabaraka wa taala waxe yonent bi nga xam ne nattab li ñu ne moo gën ci yonent yépp waaye mu ne ko toppal yoonu ibrahim toppal yoonu Ibrahim ci wàllu tawxid Ibrahima moom borom bi tabaraka wa taala nattu na ko natt yu bari du caagi ni ci rendi doom ji rek ci la ko natt woon waaye am na it yeneen i nattu rendi doom ji ca yi jëkk a am ca la bokkoon waaye gannaaw loola xam ngeen ne nettali woon nañ leen ne ba muy daataan am doom jekki na ba doon mag lool waaye bañ koy lakk ci sawara wa jiitu woon na loola bañ koy lakk ci sawara wi dana ñëw ci kanam jox la ci misaal nga xam ne lu teel la woon waaye nag gannaaw bi la dem bay mag te amul doom bi mu ñaanee ba yàlla may ko doom borom bi tabaraka wa taala ginnaaw ku gëm mu nattu la ci sa ngëm ci sa kóolute mu nattu ko ci doomam jooju rendi waaye nag am na lu jiitu loola la ko jiitu mooy bi doom ji amee yàlla daf koo digal mu ànd ak doom jooju ak yaayam ñu gàddaay dem màkka jóge fañ nekkoon muy ardu kinaan muy Palestine tey bi mu gàddaayee ànd ak doom jéeg yaayam ñuy ñetti nit képp ñëw ba fee kaaba ga nekk tey muy béréb boo xam ne dara néew fa du lu ñuy lekk du am ndox du luy aar doomu aadama bi mu fa dikkee toog fa soxna si ba am fa ñetti fan xëy bàyyi ko moog doom ji ne ko man toog leen foofu man maa ngi dem wan ko gannaaw di ñibbi soxna si di ko woo ne ko lu tax nga dinu bàyyi foo xam ne dara nekku fi wéttal nekku fi lu ñuy lekk nekku fi lu ñuy naan nekku fi mu ne cell wan ko gannaaw rek di dem bi ko soxna si waxee ñetti yoon wuyuwu ko soxna si ne ko ndax yàlla moo la digal loolu mu geesu ko ne ko waaw soxna si lam ca teg ni ko buxaar yi nekk nettalee daf ne idan la yudayiuna bu fekkee yàlla la ko digal kon du nu sànk xam na ne ab yonent la àndal nit ku baax la àndal te ngëmam moom soxna soosu àgg na ci xam na ne borom bi tabaraka wa taala ginnaaw moo digle ne defal lii kooku du yaqin boobu lañ bëgg mu nekk ci xolu jullit bi mu yëg ne ginnaaw lii borom bi tabaraka wa taala nee na jaaral fii jaar nga foofu na sa kóolute àgg ci ne borom bi tabaraka wa taala du la sànq kon loolu mooy loolu mooy ak wóolute loolu mooy indi wakkiirlu kon borom bi duñu sànk waaye nag lu aju ci nag nan la ñuy xett leeg lan la ñuy yónnee mu xett li noog fan lay jaar ba nunu sànq loolu du suñu affaire noonu loolu yow mi wàkkiirlu loolu du sa mbir ndax borom bi tabaraka wa taala ay mbiram moo xam nu mu koy doxe su ne dara nekkal mu nekk loolu doy na sëkk moo tax wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbuhu ki wàkkiirlu ci yàlla kooku yàlla doy na ko mu jeex yàlla doy doy doyloo nanu ko boo xasee agsi foofu jeex na moo tax Ibrahim bu delloo ci njël njëlbeenu dundam avant lii di am kon danañ xam ne li borom bi tabaraka wa taala ne aataynahu rushdahu min qabl dañ ko joxoon ak njubam bu yàgg kon ñu xam ne ku teel a jub la <clears throat> ndax Ibrahima kat bañ koy taalal sawara wu metti wow di ko ci sànni fukki at ak juróom-benn la am fukki at ak juróom-benn képp waaye teewut ci wàllu njub xam na ne yàlla dong moo yooyu ñu di ko jaamu sawara woo wax nañ ne taal nañ ko juróom-benn weer. yoo xam ne lu waay for ñëw sànni ci ci xeeti matt ak lépp luy tàkk nit sax da daan def bu feebaree <coughs> ginnaaw jàpp nañ ne lañ nekkoon mooy lu baax dañ doon nisar di wax ne ah sama doom ji de bu juddoo ci jàmm wala su wéree ci jàmm danaa taxan aw say def ko ca taal ba ngir bëgg taal bi gën a yànj noonu lañ doon xàmme matt moomu ba mu toll foofu bi mu demee ba àgg ci nag dara desul lu dul ñu génn ñoom waa dëkk bi war a sànni Ibrahima ci biir sawara wi ci kaw rek ne dane nañ jaamu yàlla kepp bañ a jaamu leneen wala keneen ku dul yàlla ñu ne fan lañuy ñuy jaar ba sànni ko ci ndax sawara wi àgg na ci kenn mënatu ko jege dëkk yu fi jege woon yépp toxu nañ ndax tàngaay bi bu dara naawee tiim ko digganteem ak asamaan daanu ci ñu ne kon nañ liggéey li ñuy wax man janiq sànni Ibrahima ci biir man janiq bu doon ñu mën a rëyal dañuy wax ne mooy laspeer yi xale yu yor di ko sànni picc yi ñu liggéey ci nag boo xam ne nit daf caa xaj dugal ci Ibrahima jël mbooloo mu dul jeex ndax waa dëkk ba yépp ña toppoon buur ba ñi àndandoo jàpp ko di ko taw wi di ko taw wi di ko bëgg sànni ngir bëgg a taw wi ba mu dang ñu bàyyi mu dem ci biir sawara wi diggante boobu taw wi gi ak sànni gi lu nekk xajoon na fi keneen ku mu ku kurul ku am ak wóolute ci yàlla xeetu saalit wu nekk waroon na fi mën a jaar waaye jaaru fi wax nañ ne ci riwaayaat yi niñ ko nettalee ci ibnu kasir ak yeneen yu dul yooyu diggante boobu asamaan yëngu na ndax malaayika yi kenn ku nekk ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala jox ko ndigal malaayika mi yor taw bi ne ah xanaa leen ñu jox ma ndigal li parce que gis na ne mbir mi sawara la te ndoxa ci man dara waaye taxul ñu jox ko ndigal li bindee fi yàlla yi nga xam ne lim leen jox ci kàttan kenn xamul nu mu toll alladi indahu ilmun min alkitab mbindeefum yàlla moomu nga xam ne Suleymaan ba mu soxlaa chaise ba buur ba ñuy wax Balqiis di toog ca Saba bi Suleymaan ne damaa soxla chaise booba suleymaan di buur di yonent kooka di buur ifritun min al jinni moo jóg taxaw kooku ci ñi yàlla jox kàttan la bokk ne ko man ne mën naa bala ngaa jóge fii nga toog ma indil la chaise ba balqis di toog suleymaan da daan def bu xëyee day toog di atte ba bëccëg jot mu wàcc kon loolu mooy fii ci suba bala ngaa wàcc kon ci bëccëg bi danaa la ko indil wa qaala alladi indahu ilmun min alkitab kii nga xam ne moom la yàlla jox xam-xam bu toll ne xam-xam bu jóge ci téere yi sunu borom tabaraka wa taala yam jagoo la kooka ne ko man de mën naa la ko jox balaa sa bët a xippi falamma raahu mustaqiran indahu mu geesu rek gis ko mu ne ko mu ngoog ma ne borom kattan yu mag yooyu ñoo taxawoon di riir kenn ku ne naan ak a neexoon ñu jox ma ndigal tey ba ma jóg ci sawara wi waaye yooyu yëpp amul pas-pas ba ak yaqiin ba moo ko téye jibril feeñu ko ne ko ndax aajo nga ma mu ne ko ah bu dee ci yow la jëm de aajo la waaye bu dee ci sama borom on oh, kay aajo woo naa saa borom xoolal boobu diggante ak yowyu xat-xat lan la pas-pas di def ci nit ki yooyu yëpp teewut Ibrahima di Ibrahim pas-pas ba di pas-pas ba kenn xamul nan la ko borom bi tabaraka wa taala di xettalee bam ne qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim bi dara desul lu dul sànni rek borom bi tabaraka wa taala mi defoon ci sawara wi lakk mu ne ko nekkal lu sedd lu ànd ak jàmm ci Ibrahim ñu sànni ko ca biir bàyyi ko ca sawara di tàkk ñu dem seen yoon ibrahima alayhi salaam niñ ko nettali ci saxiixul buxaari nee na fan yim am ci biir sawara wa dafa na ne àjjana la tàbbi li gën a neex ci ak dundam diggante fi mu juddoo ba mu faatoo mooy fan yim am ci biir sawara woowu barkan wa salaaman kon allahu akbar kon borom bi tabaraka wa taala foofu lay jaar akub jaamam foofu la sunu borom tabaraka wa di jaar ak jaamam bi nga xam ne wóolu na ko ba jël boppam jox ko wàkkiirlu ci moom kon mbokki jullit yi mbirum wàkkiirlu day tabaxu ci kaw wóolu sunu borom tabaraka wa taala kóolu tëgg su amee wàkkiirlu gi am yëgal ne borom bi tabaraka wa du la sànk rafetal njort ci sa digganteeg sa borom xanaa kay li ngay wax mooy ndax man mii li ne ci man ci xeeti ayib ak xeeti ndëngte xeeti mbir yoo xam ne yu làq ci man la ak i pas-pas ak i bokkaalee ki ay biddaa ki yëf ndax loolu gàllankoor na ma ba dox sama digganteeg ma yeyoo lii waaye na la wóor ne pas-pas bi su wéree nga tegu ci siraatul mustaqim borom bi tabaraka wa taala du la sànq ak fu natt bi mën a àgg na sa njor faafet ci sa borom tabaraka wa kon jullit yi loolu la lislaam bëgg bëgg mu nekk ci nun yonente bi sallallahu wa sallam anam gu ne jàngale na ko nit ñi leeral bu ne leeral na ko nit ñi wax na ne sax su fekkoo ne da ngeen di wàkkiirlu ci yàlla ni ñu war a wàkkiirloo ci moom kon mu war wërsëgal leen ni muy war wërsëgale picc yi picc mi day xëy bàyyiwut ci këram dara yorul dara itam waaye nag dafa aw mu xëy buy xëy di dem day xiif dara du ne ci biir bi waaye nee na buy ñëw biir bi day fees dell kon noonu la ñuy wàkkiirloo kon kooku misaal la boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf na koo jox ngir bëgg ñu wàkkiirlu ci suñu borom tabaraka wa taala kon mbokki jullit yi ñàkk a ci yàlla moo tax yu bare bari ci yéen koy dund yi ñuy dund tey nuy gis nit ñi di ko dund ci woyofu pas-pas ci gaaw a dugg ci bokkaale ci gaaw a dugg ci lu sun borom tabaraka wa tere yooyu yépp boo ko gëstoo day dellu ci tomb bi muy ñàkk a wóolu yàlla ak ñàkk a wakkiirlu ci moom lan mooy tax nit ki di dem ba mu yàgg mu mën a gëm ne doomam yii di faatu dafa am rab wu koy rey woo xam ne su ko tuddee doom kooku mën naa mucc lan mooy tax ñu ne la béréb sàngam ku fi dëkk faaw sa doom nga tudde ko rab sàngam tuur sàngam say doom door a mën a dund ay doom di faatu nga wutal ko ay tur yoo ne jàpp nga ne lii tur la woo xam ne mën na ko fee bàyyi ngay dégg xeeti tur yi kenn xamul lu mu doon kenn bëggul kenn bëggul mooy kii kenn bëggu ko ndax xam nañ ne lee mu dem yàq mbootu ñu ne kii xam nañ ne xottil ko mbootu di ko boot yàq ko la ndax xam nañ ne lee mu dem xeet yooyu nga di ko wut ndax defe ne mën naa nax sun borom tabaraka wa taala pour kooku fi warul woon a toog toog fi te kat yow borom bi tabaraka wa taala waxu la ne defal effort pour nga nekk fi yow wala sa njaboot nekk fi wala say bokk nekk fi loolu yàllaa ko yorul boppam waaye dana lu defal effort yow pour jaamu yàlla ba doo jaar ci ndëngte jaxase googu nit di jaxase nag fekk li yàlla jagoo ñi ñëw ne dañ ko ciy dimbali lam leen doon defloo ñu sàggane ko loolu moo doyadal dundug jullit yi tey moo tax suufe gi am moo tax doyadi gi am moo tax nit ki mën a tàllal ay loxoom ñaan boroomam te ñaan nga du nangu ndax fekk na lëj na oto bi ca biir machine bala ca la paane kon faw ñu del si defaraat xol yi xam suñ diggante ak suñ borom tabaraka wa taala lan la yeyoo ci noonu nu delloo suñuy mbir suñ borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi su xëyee génn këram wax baat yi bismillah tawakkaltu ala allah wakiilu naa ci yàlla du ko wax rek ci làmmiñ de waaye na ne ca xol ba laa xawla wala quwata illa billah kattan amut lu dut ci yàlla ñetti baat bismillah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah ñetti baat yi ne boo génnee kër wax ko ne malaaka danaan ko doy na doy na yow gindi nañ la fegal nañ la aar nañ la gindi nañ la fegal nañ la aar nañ la nee na su ko defee seytaane sa taxawoon ci kanamam bëgg koo yàqal day dow taxaw fële seneen seytaane taxaw di ko reene ko sa waa ji de tey mënaloo ko dara loo man ci koo xam ne gindi nañ ko fegal nañ ko aar nañ ko kon ñetti baat yoo xam ne jullit bi da koy wax saa bu génnee këram di ko dund ñu fegale ko noonu ak dundam kooku lu am solo la waxuñu rek li ñuy wax ci làmmiñ la nag waaye dañuy wax di ko xam boole ko ak di ko dund boo ci sa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngalee noonu mooy jullit bi dafa war a takkoog loolu di ko wax di ko fàttaliku ndax kat ku xëy faaw boo amee wér-gi-yaram da génn sa kër te su fekkee saa booy génn kër gi wax ko bismillah tawakkaltu ala allah wala xawla wala su fekkee sax booy génn wax ko te fàttaliku ne da ngaa jël say mbir jox ko sa boroom kon mbirum wakiirlu bu yàggee dana sax ci sa xol bu yàggee da nga doon jaamu bu yàlla bu wakiirlu ci yàlla ci kaw suuf si te su boobaa lu mën a lor ku ñuy wax xaatim al asam bu baax a baax dañ ne ko gis ne ku wakiirlu ci yàlla nga waaw wakiirlu gi ci foo ko teg mu ne ci ñeenti mbir ñeenti mbir yi ci laa teg sama wakiirlu ba ca jiitu mooy xam naa ne sama wërsëg keneen mënu koo lekk looloo tax sama xel dal sama wërsëg keneen mënu koo lekk loolu moo tax sama xel dal boo tomb bi ci jiitu ba ca des mu ne xam naa ne li ma war ma war koo def keneen du ñëw di ma ko defal loolu moo tax man ci loolu laa ne maanaam ana mashghulun bihi maanaam moo tax ma nekk ci sama liggéey bii ma war ba aw ma jotu sax di wax ci keneen wala may jote keneen leneen moo tax suma xëyee rek maa nga ca la ma war ba ko ñetteel mu ne xam naa ne dee du tàggoo dee day bette moo tax ma di ko waajal moo tax jamono yu ne maa ngi koy waajal di njëkkanteeg moom sax la wax nee na xam naa ne it mënuma làqu foo xam ne yàlla gisuma moo tax fu ma toll fu nekk ruus naa sama borom ñeenti yëf yoo xam ne bu dajee ci jaam bi dana bàyyi xel boroomam dana ko doyloo dana wàkkiirlu ci boroomam tabaraka wa taala allahuma ruddana ilayka raddan jamila allahuma ruddana ilayka raddan jamila allahuma ya muqallib alqulub sabbit qulubana ala dinik allahuma aslix alqulub wal amal wa aslix minha ma dahara wa ma batan wajcalna min cibadika almuxlisin allahuma inna naudu bika min algawaayati waddalaala allahuma sabbitna ala diinik allahuma aminna fi awtaanina allahuma aslix a'immata wulaata umuurina allahuma xus binawaasina ila ma tuxibu wa tarda wa zayyinna birahmatika bilbirri wattaqwa wajcalna min cibaadika almuhtadiin allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmaciin wa aqimi salaat